non dafa ak ça la tax man la Amadou Ba parce que bu doon Amadou Ba pilotage automatique la. ok mi ngi ci biir xam na lépp. ok te lépp ci moom la jaar. Mhm. xam nga baal ma. Mhm, mhm, mais malheureusement. Macky Sall dafa dem bi mu demee ki mu bàyyi yëf yi c'est le gars qui a le profil le plus faible. qui a le projet le plus faible qui n'a même pas de projet d'ailleurs. et qui a le niveau le plus faible le nouveau entretien le nouveau. lépp ci lep, faible en tout. boo ko joxoon Amadou Ba mooy gën. Mhm. boo ko joxoon euh, Mamad Lamine Diallo mooy gën. Mhm. dëgg la boo ko joxoon Boubacar Camara mooy gën. dëgg la boo ko Idrissa Seck mooy gën. dëgg la dëgg la boo ko Khalifa Sall mooy gën. dëgg la dëgg la c'est-à-dire yàlla daf ñoo Nato, mhm. c'est le gars le plus faible. qui a le profil le plus faible. le projet le plus faible qui a gagné. kenn mësul dégg loolu. kenn mësul ki nga xam ni nii moo gën a ñàkk a xereñ. le dernier de la classe. am carrière maanaam jaar jaar bi gën a faible. Mm-hmm. ci xam réew. Mm-hmm. amul sax projet far. parce que wax na 10 ans projet ñëw ñu ne amul amul projet. ak fi ñu jógee ñun. kooku moo gañ. le dernier de la classe kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy ay kaddu expert analyste politique di Cheikh Yérim Seck Macky Sall fu mu demee mooy fu mu téye affaire yi fi Sénégal waroon gën a neexee fi Sénégal waroon gundaandaaxee foofu la Macky Sall demee ndaxte dafa maîtriser woon situation bi maîtriser mais foofu la demee jël réew mi bàyyi ko ci ay loxo ñoo xamante ni mën nañu jàpp ay stagiaire lañu xamuñu dara moo tax ñu daaneel réew mi yóbbu ko ci guuta boo xamante ni amul fan waaye il n'est jamais trop tard pour réparer l'erreur ndaxte Macky Sall ku ko dégg bërki démb ak li nga xamante ni mooy militant APR yi kon donc Macky Sall parewaat na pour ñëw donc je crois que sénégalais yi mën nañu rectifier tir bi ci élection législative yi en donnant la majorité li nga xamanteni moy opposition bi de ce fait que pour que ñu mëna sauver waat Sénégal ba bëpp sénégalais bo xamanteni jamono ji yaa ngi jooy ndóol di joy nakar ak tiis di joy ñak di joy xif pour que nga mën ci génn ak sa nouveau régime ndaxte il n'est pas encore trop tard mais élection législative suñu rombé jàppaleen ni que fii ak 2029 ken mënul soppi Sénégal donc muy ay cadre yo xamanteni Cheikh yirim Seck yëkëti nako jëmele ko dal ci ki nga xamanteni moy mooy Macky Sall di le meilleur président bi nga xamanteni histoire politique Sénégal mosuñu ko xam Afrique seede ko Europe seede ko États-Unis seede ko Chine seede ko àdduna wërngal këpp daal di koy seede